Euh, mbokk yi ba tey ñu toog ak kenn koo xamante ne kenn du ko présenté muy ambulance euh, nekk président euh, président. 100 pour cent Guédiawaye nekk président Akhlu Lamb Sénégal ambassadeur Akhlu Lamb Sénégal tey ñu ñëw fii ci li nga xamante ne mooy bisu tiis la bu génn àdduna Père Balla Gaye yan témoignage nga ñu ci mën a defal. ginnaaw bi ma leen ziare yéen waa Wasaare. Euh, xanaa di leen jaalewaat li ñu bokk rek ndax monde làmb ñoo perte te yéen bu ngeen dee yëngu ci làmb mun nañ leen a jaale Père Balla comme ni ngeen ñu ko mën a jaalee waaw loolu daal moom mun naa leen ko àggee en attendant mais par Père Balla géej la kenn mënut a wax moom ci moom ba jeex. relation nga amoon ak Père Balla du man rek maa amoon ak moom ay relation géej géejawaay yëpp ñoo amoon ak moom ay relation ay relation yu intense parce que. kilifa la woon kilifa du ci du ci mais kilifa la woon ci wàll bu mu féete woon ñu gën ko ci ràññee muy wàllu làmb ndax tey man bu ma nekkee président cent pour cent Guédiawaye Père Balla la nekk fi yor école de lutte Mor Fadam yor école de lutte école de lutte yeeg écurie yi nekk Guédiawaye yëpp ñu tànn ma jiital ma de ce jàppal ne rek mag ñi am na lu ñu defoon ci man ma fas yéene koo def ci xale yi ba tax na Père su may wax ci moom mënumaa jeexal Père Balla daal dañ koy ñaanal yàlla suñu borom mi nga xamante ne moo sañ ñu muñ may ko njëgal tabal ko aljanna loolu lañ koy ñaanal mais vraiment marqué na empreinte te li waroon na def ci géej waaye def na ko waaw. yan anecdote mu mën a jox ci moom. bon Père mun naa laa fàttali rek benn anecdote ci sama carrière man sama combat ak Tyson Junior damaa ñëw fii ci këram ma ànd ak Mor Fadam moom itam yàlla na ko yàlla yërëm euh, Père Balla ne ma Tyson Junior dalay daan boo gëmul ne lii ak lii ngay def ma ne ko père mu ne ma ne ko Tyson du ma daan nit ñi mun nañu jàpp ne ëpp na ma doole waaye maas la ma ëpp waaye ëpp ma doole. te mun naa koo jàngal bëre te bëre bi muy bëre saawu ci yëngoo dinaa jommal Sénégal perre ne Mor kii li mu wax nii Mor ne ko li mu gëm la nag li nekkoon ci ñun yëpp daanaka mu ngi ci moom parce que gëm na loolu ñu dem ci làmb ja bi ma defee loolu ca suba sa bi ñu dajee daf ne ma yoodoo nit da da ngay am looy naawe mu ne ko wallaay per du loolu moo tax euh, mu nekkoon nit koo xamante ni day motiver mbër da ngay dem ci làmb war a daanu mu wax la luy tax yow doo daanu parce que dalay dalay ñaax da ngay jékki mu yuuxu la ne la yow ragal nga yow foo ragalee xam nga di la pousser ci yoo xam ne day tax yow di la yokk jom waaw moo tax euh, perte la bu mag ci géejawaay perte la bu mag ci géejawaay surtout ci monde làmb waaw xanaa di lancer waale appel aussi ci waa axlu làmb Sénégal di leen jaale waale rek parce que tey buñ ne am na ku wàññeeku ci monde làmb rek axlu làmb senegal lañ koy jaale parce que axlu làmb Sénégal dafa vax mun naa ne moo ëmb Géejawaay moo ëmb Pikine ëmb feneen raison yeeg lépp kon donc dañ leen koy jaalewaale di jaale di ko jaale alfali di ko jaale ñëpp rek ñuy yëngu ci làmb yéen ñi journalistes yi aussi ñu ngi leen koy jaale bu baax di leen masawu ci coono yi ak euh, li ngeen di daj te ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax ndax yéen itam yéen a ngi doxal seen wàll yéen a ngi doxal seen waar bu baax a baax ñu ngi koy gis yal na leen yàlla taxawu jàppale leen bu baax a baax jaajëf kontaan nañ jërëjëf.